kii kii léegi c'est que ñun li ñu bëgg mooy ñu mën a ñu mën a évacuer ëtt bi. waaw ma nga xam si ne bu tawaatee ci guddi bi. waaw ndox du mën a dugg ci néeg yi parce que fi mu ne néeg yi bâtiment yi néeg yi dafa fees. bu tawaatee tuuti rek day dugg. waaw léegi moo tax léegi ñu bëgg a ñu bëgg a gagner de temps pour. mën a récupérer li ne ci ëtt bi ba pare. am na ku fi jógee léegi ci waa ONAS nee na mi ngi ñuy indil benn pompe. léegi bu ñëwoon dañ koy teg fii ci ëtt bi rek. Euh, màggal nga xam ne ONAS. ONAS màggal nga xam ne ONAS. Bamba ñoo na fi sànq nii mais nee na waaw bu ñu amee pompe bu mag daal moom ëtt bi moom bu setee rek moom. fii il faut que ndox mi teel fay bu tawaatee da bu indee bi. am na yeneen yoo xam ne ñun si yoon wi di ñëw jóge Dakar bu ñëwee ngeen am si ñaar wala ñett yoo xam ne mënul ñàkk ngeen dugal ko fa mu génnee ndox mi. am na fi mujjee mooy li ñu doon wax. bu bu taw baree ba xam nga yoon yu mag yëpp day fees bu boobaa boo pompé fii sax amoo foo ko génnee léegi bu ñu toogee ay heure ñu pompé ci biti comme ni nga gisee ci jumaa ji xam nga ci bi may jot vidéo yi ci suba fii dafa feesoon ba lépp jot naa parce que même même même canal yi ci néeg bi waaw ñi newoon ci buntu kër boobu ñun ñoo demoon ci la kër yi di ko génnee parce problème bi mooy boo dindiwul fee yi nekk ci buntu kër gi boo ko dindiwul léegi boo ko dindiwul ndox bi day dugaat ci biir kër léegi loolu lañ bëggoon moo tax ñu dem dindi yi nekk ci buntu kër gi ba pare pour léegi lu ñëwati yem foofa léegi li nekk ci biir kër gi nag ñu jéem noonu ngeen ko doxalee moo baax léegi électropompe yu ndaw yi nag la yokk parce que lii mooy solution bi bu ñu génnee mbedd yi ba ba ndox mi dem ñu dugg ci biir kër yi ñu ngeen ko defee fii ci résidence bi ñu xool kër yi nekk fii moo tax jeunes yi ana ñu communauté bi ci mën a dimbali am na ay moto pompe yu jóge Dakar di ñëw électropompe yu mel nii ah. am ni réyul noonu waaye bu duggee ci kër gi dana mën a fi mu dana fi fi bàyyi yii di ñëw ñun bu boobaa ñun ñu fi nekk ñun danañ jël suñu place parce que ñun depuis ca 11 ba léegi ñu fi ñun ñoo nekk di jëngu ci canal ci nekk. yow li ngeen li ngeen ñu dimbalee dañ di jox ay pompe yoo xam ne du doon benn du doon ñaar dina di jox loo xam ne mën ngeen ko def fii mu fiy pompe ngeen xoolal ma li wër jumaa ji yëpp fépp xam ne barab la buy am ndox ngeen def équipe yooyu wër di ñu ko génnee ni ngeen ko defee fii voilà loolu la ñuy def pompe yaa ngi ñëw bu ñëwee dañ leen ko jox ngeen am pompe yi ngeen gérer ñu ko ngeen dégg rek bu fii jeexee ngeen def équipe bu dem topp rek noonu ñu wër jumaa ji kër bu fi nekk ci kilifa ngeen pompe génnee ndox amul benn problème noonu la ñuy joxe tamit ñu jox leen ay nga xam ne bu mbedd yi demee ba ndox mi jeex ñoom mu dugg kër yi pompel ñu mu génn ñu jële ko ci mbedd yóbbu ci bassin noonu lañ ko jàppoo rek incha allah noonu ñu ngi leen a di leen rek a ko mën a parce que ñun ay citoyen lañ ci waaw ma mm-hmm. dénk leen ko. ñoo yor résidence. macha allah moom nii moo jawriñ la. donc mm-hmm. moo ànd ak xale di liggéey. macha ñoom moom ay bon volonté. xam nga maanaam ci ndigal it lañ donc li ñu li ñuy def rek mooy li nga wax. macha allah remercier wutal matuwaay yoo xam ne dana ko bu ko ñëwee. ñu def ko jox leen chargé. donc bu bu ko dee moto yi ñëwee dana leen ko ñëw. macha allah jërëjëf comme si yoon bi lu mu guddi guddi dina faral si ñun moom après ñun moom après ba fajar. même bu dee taw même bu dee taw sax bu fi pompe yi ñun dañuy taxaw ba fajar ñun. waaw ëtt bi daal moom lañ bëgg mu set parce que balaa ndox yi dugg ci biir. waaw waaw incha allah kii moo waxoon na ma daal indil benn pompe sànq ñëwoon na fi quoi mën ma naa indil benn pompe ok merci beaucoup. baax na jërëjëf